jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internetu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dalee nag jàmm ci seen chaîne bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a ngi fi toppee la nga xam ne moo di xibaar niki tey ji nag di Xelcom ñu woote ko foofee nag ngir rek amal la nga xam ne rek moo di liggéey boobee nag ñi nga xam ne rek ñoo di murid yi ñu ëpp ci ñoom nag. daal di dem foofee nag ngir teewe la nga xam ne moo di liggéey waaye nag niki jii mbooloo mu takku lañu ñu nemmeeku foofe nga xam ne moo di ci yoonu ah, xelkom bi ñu bëri nag di dem foofu waaye nag ñu nemmeeku fa la nga xam ne rek moo di accident bu metti mu di rek. ab oto boo xam ne dafa daal di euh, këpp mu di rek avion boo xam ne euh, dafa daal di euh, këpp foofee nga xam ne moo di ca yoonu xelkom bi niki tey ji nag mu nekk nag xam ne doy na lool mu di rek boo xam ne dafa daal di saaraan nag daal di mbëkk ay garab daal di këpp mu nekk nag loo xam ne doy na waar lool niki tey mu nekk nag ay mbir yu doy waar xew foofee nga xam ne moo di ci yoonu xelkom bi